dëgg fe mu nekk ci tàccu leen société civile bi des taxaw ba léegi tàccu leen leen macha allah c'est pas facile c'est pas facile parce que ñoom ñu continuer taxaw moo waral tey ñu am bis bi nga xam ni tous les citoyens sont unis Sénégal pour la démocratie donc nañu continuer ci lancé bi demain am na ñeneen ñuy woote gannaaw suba am na ñeneen ñuy woote di wax rek ne combat bi ñuy mëne pour le Sénégal kii di Ousmane Sonko daf ci nekk la solution malgré que mu ngi ci diggante malgré que mu ngi hôpital gëm nañu ni lenn rek lañ koy ñaan di ñaan yàlla mooy mu may ko gudd fan parce que lenn de wóor amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du wàcc 2024 amul Macky Sall fu mu mën a jaar ba du tere yéene bii jeunesse bi am ci Ousmane mu eggali ko nañu am fulla nañu am fayda bu kenn xoqatal bu kenn tiital bu kenn tapet loo parce que comme ñu wax léegi léegi ñun duñu ay défaillant ñun duñu ay traître ñun duñu jël gaal duñu daw ñun duñu dayi péril de sa vie. Alors résistons au péril de nos libertés. C'est le moins de qu'on puisse faire. nous si nous voulons être libres. Merci